alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax gagnant bi mu ngi féetee suñu camp ci département bi man Ahmed Youssouf Bengelloune maa ko gagné gañaay bu leer nañ bu amul benn naa table communiqué la bi nga xam ne ne mooy majorité plus de la majorité de l' électorat presque 60 pour cent de l' électorat on l'a gagné à 60 pour cent le Benno vient en euh, second avec 20 pour cent loolu rek su fi yemoon rek suñ ci boolu yeneen commune rek déjà gagné nañ te terew ci yeneen communes yi on est en ballottage avec eux lu mel ni commune commune Kahone sax ñu ñoo ko gagné avec 1800 euh, voix ñoom ñu am 1400 commune Sibassor tamit ñoo on est très en avance Gandiaye la même chose Thiaré 100 voix la ñu fa yeneen communes yëpp ñoo fa en ballottage kon boog dama ne match bi jeex na le Benno a perdu ici à Kaolack aussi bien au niveau communal qu'au niveau di wax ne ñu am mat mat di ñëw jébbalu daan ne gagné nañ leen présenté ñu suñuy félicitation ñu xam ne askan Kaolack moo gagné ñu ànd ñu tàll ñoo ngi leen tàllal wax ñu ànd liggéey suñu dëkk bi ndax ñun utuluñ dara suñu bopp Kaolack a taxoon ñuy yëngu Kaolack nag te foog naa ne ñoom Kaolack a taxu ñuy yëngu donc nañ nangu ne gagné ne leen malgré malgré rétention de quartier yi malgré irrégularité yu bëri ñu constaté dans certaines communes yu nekk ci commune rurale yi les gens ont voté jusqu'à 23 heures, ce qui est inadmissible. Malgré tout, la population de Kaolack et les jeunes leur ont montré le dos. kon boog waa Benno dama ne ngeen ñëw wax ne ne ngeen nangu ne gagné nañ leen gagné bu leer nañ nag ndax commune bi comme nu mu ko waxee ëpp na ñetti yoon yeneen ci ci ay nit yu war a woote ci yeneen treize autres communes yi te commune bi liñ dañ leen fee labbali ba mët sëkk. 60 pour cent la ñu ñoom ñu pour cent kon boog dama ne wax dëgg yàlla teel a jébbalu day euh, dafa baax ñëw leen nangu seen defet ñu ànd liggéey ndax nag Sénégal rek moo ñu ñor Kaolack ndàngal rek moo ñu ñor victoire bi nag maa ngi koy déjee jeunes yi maa ngi koy déjee population Kaolack yëpp waaye rawatina suñu mbokk jeunes yi nga xam ne ne gis nañ ne la coalition ànd nawal ànd liggéey moo seen coalition ndax coalition bi moo jël en charge seen aspiration mais tamit coalition bi moo leen fulaal jël seen ndoom comme ñoom daal di koy ci bopp département bi pour mu comme porter combat bi nga xam ne mooy lan alternance générationnelle bi ñu soxla ci dëkk bi